wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alxalqi manbaul anwaar jumjumatul awalim sayidul almushur sallallahu alayhi wa sallam wa radiallahu an asxaabi ajmaina wa man tabiahum bi ixsaani ila yawmi ddin mbokki julli yéen ñu baaxoo di seetaan sunu kër gi sunu gaal 24 di ànd ak seen mbokk sas Habib Socé ci actu diine ñu ngi leen nuyu baax di leen ziar di leen wàcc seen wàccuwaay di nuyu baax di ziar suñu xalif généraux yëpp macha allahu waaye di nuyu di ziar nag xususiya sunu sëriñ sunu wasila cheikh na Ahmad Tidiane Sall bu di misqa ñu ngi koy ziar di ko ñaan yàlla gudd fan ak wér mbokki noonu lañ nuyu di ziar sunu sëriñ daara Seydou Sall nekk fële ci Thiès nekk daara ju xam ne xale bu bëgg a mokkal incha allah bu fa demee rek incha allah euh, dana mokkal alquran ci kàttanu yàlla waaw daara ju xam ne tubaarkàlla njàng ma aw na yoon trop te euh, tarbiyatul islaam yi ba fa nekk maan yaru diine ba fa nekk rek jar na si doom dugg fa tubaarkàlla noonu la ñu di ziar ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk bitim réew dañuy topp ko demee ni xaaji Sidi Dieye ñu ngi koy ziar bu baax di ziar baax soxna Binta euh, Fall nekk fële ci New York di ziar sëñ Babacar Thiam nekk New York euh, mbokk yi ñu ngi nuyu baax di ziar tamit nag euh, mbooleem rek fu ñu waa ji toppee waaye nag xam naa tey ñu fa seen ñëw ak yéen ci benn waxtaan boo xam ne ay fàttaliwante la waat rek encore muy xew-xewu jamono yi ak yi nga xam ne moo jëm ci diggante nit ñi yàq der gi nga xam ne moo fi nekk yàqante bi bu nekk nga gis nit ñi tubaarkàlla mel ni dañoo fàtte li taxoon yàlla wàcc ñu waaye fàtte ne ñun dafa am nu ñu war a mel macha waaye mel ni loolu bu ñu koy wax dañ ko daan xool di ko séntu ci côté bu xam ne ñooñu nekkuñ ay musulman sax lañ ko daan gën a séntu euh, ndax euh, dañ daan wax ne jullit moom foo ko fekk rek euh, éducation day baax waaye day nekk ko xam ne wa iza xaatabahumul jaahiluuna qaalu salaama macha allah di yabituuna li rabbihim sujudan wa qiyaama waaye tey dafa mel ni xaalu salaaman boobu dañ ko def mu nekkaat leneen tubaarkàlla mbokk yi ba léegi nga gis ne loolu la ko waral mooy euh, borom xam-xam dañuy wax day wax mu ne benn borom xam mu ne mu ne mu ne nit ñi seen seen tabia dafa wuute maanaam seen euh, nature moo wuute dafa am xam naturel la mooy jàmm rek lay woote am xam naturel la mooy moom euh, tubaarkàlla fu mu nekk ta coow amul musiba amul rek du du am lu ko neex. léegi nag yooyu ay jikko la yoo xam ne doomu aadama bu nekk yaa ko mën a defar sa bopp yaa ko mën a defaral sa bopp yaa mën a organiser sa bopp fexe ba nga bokk ñi nga xam ne sam réew yaa koy ñoo ñoo koy tabax ñi nga xam tabax sam réew ci jàmm ñi nga xam ñooy tabax sa euh, sa dëkk si jàmm ñi nga xam ne sa diini bi nga nekk ñoo koy tabax si jàmm ñooy fexe ba diini ba ñépp mën a nekk si jàmm borom subhanahu wa taala defoon ci alquran mu ne Euh, mu ne innamal muminuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum gis nga nee na nit ñi nit ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla nee na yéen ñëpp ay mbokk ngeen waaw yëpp ay mbokk ngeen mais mbokk bu ñu xoolee tey yàq der gi ni mu mel mel ni léegi mbokk googu dañ ko effacé teg à côté est-ce que loolu la yàlla digle déedéet diglewul loolu loolu kon ñun ñoo ko jël def ko mu nekk suñu habitude mu nekk habitude boo xam ne baaxul habitude la boo xam ne bu ñu war a sensé la parce que jàng ba am xam-xam di xaar pour mën a yàq deru jàmbur loolu jaarul yoon jë jëmul kër parce que bu ñu xoolee euh, mag ñi bu njëkk ndeysaan da nga daan gis nit day bind sax benn téere ba mu yegg mu dem yët ko morom mu doomu soxnaam mu jël téere bi xool ko xool lépp li ci biir pare jox ko ko ne ko lépp baax na wala mu am lu mu ci defaraat jox ko mais bu fa jógee même la moo ci defaraat seen diggante la yem ñoom ñaar seen diggante la yem ñoom ñaar mais léegi nag da ngay gis ko xam ne day wax sax wala mu jëf léegi àdduna yëpp mbamb ko commencé nangam nangam nangam te pourtant ñaata at mu ngi wax muy baax ndeysaan ñaata at mi ngi wax muy baax kenn waxul ndeysaan waaw yooyu yu mat a bàyyi xel la ñu su ko defee ñu bàyyi ci xel ñun ñëpp ñu jéem a xool euh, nu ñuy def ba suñu diggante ñun jullit ñi ñun musulman yi euh, euh, mu gën a rafet mu gën a rattax mu gën a mu gën a baax waaye boo xoolee tey Euh, dem nañ ba ñi nga xam ne ñoo jugoon pour jéem a daaneel islaam ñu ngi commencé am ay port yu ñuy mën di dugg ñu ngi commencé am ay porte yu ñuy dugg waaw ndax dafa am ci nit ñi ñoo xam ne euh, ñooñu lu baax moo la ñuy teel noonu la amee ñoo xam ne safaan moo la ñuy teel moo tax boroom xam-xam ba doon wax naan fa minhumul mus muhsin fa minhumul muhsin kon ndeke jullit bi war na fexe bokk si ñooñu fa minhumul muhsin dina am na si nit ñi ci jullit ñi ñoo xam ne ñooñu way rafetal lañ maanaam fu ñu toll mu ñoom dañuy bëgg toujours mooy jàmm am lépp rafet lépp baax waaye noonu la amee seen biir wa minhumul si ñu xam ne ñoom ñaawteef rek moo leen moo leen ñor ñaawteef kase moo leen ñor maanaam bu ñu fekkee nit ñi nekk ci jàmm sax nit ko xam ni ngiy defar sax pour diggante yi ratax diggante yi baax ñu fexe nu ñu ay ayibalee kooku dañu fexe nu ñu yàqee loolu dinañ fexe ma ba deru kooku bu mu baaxat baaxati mbokki est ce que loolu la ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal déedéet loolu yonent bi jàngale ñu ko moo xam ci wàllu diine ji la moo xam ci wàllu politique bi la moo xam ci wàllu dëkkandoo gi la bu mu ci manti doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jàngal te alquran jàngal ñu ko te mu nekk loo xam ne rôle képp kuy wax ci diine la nga wax ci comme nekk ko yonent yu bëggee sallallahu alayhi wa sallam te mooy ñi defaraat jikko yi jikko yi baax jikko yi baax mbokki bu jikko yi baaxee rek diggante yi dina la tax bu digg jikko yu baaxee rek nit ñëpp dinañu dem ba mel ni nga xam ne noonu la ñu mel waaye gis nga ba léegi noonu la amee minhumul muslih am na ñoo xam ne euh, ni ñee nekkee muhsin noonu la ñu nekkee ñoom muslih waaw nekk ñu xam ne ñoom ak sellal lañ jël taqoo ko maanaam dañuy fexe ba lépp luñ gis lu xam lu lu lu lu euh, nakas noonu sax ñu fexe ba defaraat ko nit ki da nga war a fexe doomu aadama nga nekk muhsin nekk muslih nekk saalih waaw waaye nga bañ a nekk musi bañ a nekk mufsid parce que yooyu baaxut gis nga alquran borom subhana taala ñu xam mooy euh, mu ne na am na si nit ñoo xam ne ñooñu buñ nekkee ci kaw suuf yàq rek lañ fay nekkee mooy dinañ fexe ba diggante bu nar a baax ñu taal fa fitna dinañ fexe ba mu ñëpp toogee nekk si jàmm rek dinañ fexe ba yee fitna mu jóg dinañ fexe ba ba am gis nga mais loolu lu mat a moytu la waaw parce que nekkul loo xam ne jëmal réew mi kanam la loolu nag niñ koy mën a amee mooy mooy kenn ku nekk fépp foo ti nekk foo man ti féete fexeel ba ña nga xam ne bokkuñ ak yow ñi nga xam bokkuñ ak yow nga fexe ñooña nga jox leen gëdd ak cër bu toll ne bi nga bi bi nga am yow waaw parce que bu ñu xoolee tey jamono bi boo duggee ci euh, euh, boo duggee ci euh, réseaux sociaux yeeg médias yeeg boo dem ñaareel da nga ko fekk yàqante der boo xam ne nii mbokk yi loolu nekk lu jëmale kanam réew mi waaye nekk lu xam ne moom la islam di xaas ñun. waaw nekkul lu islaam di xaas ñun yàlla li mu yoxoñ sootu furqaan mooy wa ibadu rahmani alladina yamsuuna ala al ardi hawnan wa ida xaatabahum aljahiluuna qaalu salaama waaw nee na ñi nga xam ne ñooy sama jaam ñi ni ma bëgg ñi mel nee na ñooñu ñooy ñi nga xam ne ku leen woo ci fitna ku leen woo ci musiba ñoom dañ naan dañ naan la jàmm rek lañ woote la suñu kudd kudd rocc ràcc jàmm la suñu kuddu ràcc waaw jàmm juju nag ñépp ku mën a seq mu mën a am ñépp ku mën a séq mu mën a am yow mi nga xam yaa nekk ci biir kër fexeel ba njaboot gi nga gi nga gi nga yélif te xel njaboot googu kenn ku nekk na nga ko xool ba tub yërmandi waaye kenn ku nekk nanga ko jàppale ba li mu ba li mu am li mu nekk xaqam mu man ci yot dina tax njaboot googu dina la jox cër dina la jox respe ba yow ci sa bopp nga mën a nga mën koo yëlif ni nga ko bëgg yëlifee waaye njaboot boo ko yoree ba pare xañ ko xàqam mbokki loolu day andi ci kër gi mu nekk beneen fitna day indi beneen fitna ci biir kër gi boo amee sa njaboot xañ ko xàqam njaboot boobu bis bu demee ba am benn porte bu dee bu dee éducation baaxul dëgg-dëgg rek am seytaane mën na koo mën te su boobaa kër gi mën na jaxasoo te mbokk lu loolu mat a bàyyi xel la waaw waaye tamit njaboot bu nekk nag war nga fexe ba yow ci sa bopp nga fexe ba mel na waaje waxoon waaw nee na fexeel ba képp ku la gis ñaanal ki la yar waaw ku la gis ñaanal ki la yar waxul la yow mais ki la yar ki la éduqué ba nga nekk nit ba ku la gis di la roy mu ne yow fexeel ba fépp foo dem na nga présenté wu comme nit boo xam ne bon exemple lay door waaw nga xam ne ku la gis day bëgg a roy ci yow waaye kilifa bu la gis dana kontaan ci yow ba kii la doon éduqué ba def ci yow benn éducation bu baax kooku lay ñaanal mbokki lu mat a bàyyi xel la waaye bu ñu xoolee tey jii nii euh, li gën a dansé mooy li gën a dansé mooy nit ñi mënuñ ñàkk wax waaye comme mënuñ ñàkk wax bu ñuy wax kiy waxal islaam bis bu waxee ba juum rek wala mu wax ba wax lu xam ne la euh, am na ñeneen ñu ko déggee ne leen jàmm jàmmu jeex coow li nekkul mbokk yi ce que loolu la noonu la war a demee Ababacar ak Omar de ñoom nañ daan dundee mooy kenn ku ci mosaan a wax mbir am ku jógee fële ñëw dem ci moromam ne ko diw dee wax na nangam naan la même bu dee moo ko wax dëgg la waaw bu dee diw moo ko wax dëgg la boo demee ci Omar ne ko Ababacar dafa wax nangam mu ne bu dee bu dee Ababacar wax dëgg la. nga dem ci Babacar wax ko loolu mu ne bu dee Omar ko wax dëgg la mbokk yi xool ay jullit nii lañ war a mel waaye yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon na te yonent bi wax na dëgg waaw li mu wax mu loolay dëgg ndeysaan waxoon na ci xadis mu ne dinañuy dem ba jamono sama xeet dinañu xaaj waaye bu ñu xaajee nee na dinañ dem ba dafa wax ne sax bu ñu ba cinq nekk sama biir xeet wi fa alayhimu damaar ndeysaan mu ne cinq buñ nekkee sama xeet yi ñoom ñëpp alkandeeg musiba dal na leen ñu ne ko cinq yi ban la mu ne bokk na si buñ demee ba sama xeet yi yëpp xaaj def ay pàcc pàcc kenn ku nekk jàpp ne yow parti bi nga bokk moo baax ci wàllum diine ji kenn ku nekk jàpp ne man fi ma bokk moo baax ba yaa ngi toog di xaar ku bokkul ak yow parti wala ku bokkul yow tariqa wala ku bokkul ak ya nu wax ba nga jóg dal ci kawam jëm ko saboote jéem a yàq deram mbokk yi lu nekkul lu baax nekkul luy defar sunu réew nekkul luy defar luy may diina ji ndam parce que boo ko defee ki féetee kanaa boobu day toog di xaar day toog di xaar sa waa kanaa kenn wax mu jóg moom itam kooku ndeysaan te mbokk yi xam-xam dafa yaatu xam dafa yaatu macha allah léegi nag su boobaa loolu lan moo ko mën a saafara kenn ku nekk fexeel rek lépp looy wax lépp looy wax bu dee sa moromu jullit moo ko wax nga xam ne nga boo ca waxee mu jur. benn musiba wala mu jur benn coow ci diggante jullit ñi nga jéem a xool loole noo koy mën a noo koy mën a euh, euh, woddee nga wodd ko ba nga xam ne kii nga xam ne teg na islam bët pour yàq deru islam wala muy xooli islam ne diine fitna la kooku bu mu am porte bu mën a dugg waaw loolu lu mat a bàyyi xel la fexeel ba kii xool islam di ko xoolee bëtu islam bi bët e, e, e, diine fitna la fexeel ba kooku bu mu am porte bu mu jaar pour pour yàqal islam waaye bu mu am porte bu mu jaar pour pour tilimal der der islaam waaye bu kilifa diw sàngam waxee sama kilifa wax ma jël sama kilifa teg ci kaw kee feesal ko yàq der kooku kee itam def noonu keneen def noonu mbokk yi su ko defee dañ dem ba suñu biir yi sax suñu biir yi dañ fa dañ fa da dana am ak noonoo goo xam ne la koy lal yëpp la muy doon mooy loo xam ne yàlla taxul yu noonu taxul waaye li ko waral mooy par parlo mooy tax te mbokk yi loolu taxul islaam jëm kanam loolu taxul islaam jëm kanam waaw yàlla subhaanahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ci xadis mu ne mu ne innama mu ne euh, euh, euh, laa yuminu ahadukum xata yu xata yuxiba li axi maa yuxibu li nafsihi dégg nga nee na amul ci yéen kenn ko xam ne dina gëm yàlla ñi valide ak imaanam lu dul ne dafa gis ne moom soxla na soxla na sutura mu suturaal mu suturaal mbokkam waaye soxla na tamit euh, ñëpp jox ko cër ñëpp wet ko mu jàppale ci tamit mbokkam encore waaye li mu soxlaal lépp lu xam soxla na ko boppam ci ndam rek ci lu baax rek mu soxlaal loolu yitteel loolu fexe pour mbokkam am ko waaye nit ko xam ne yow toujours yaa ngi xool noo gàccee gàcceele sa mbokk yaa ngi xool noo gàcceele sa mbokk yaa ngi xool noo yàqis daru mbokk danga ne yow jullit nga ne moom mi ngay yàq dem jullit la walla fii ndeysaan mbokk yi lu mat a bàyyi xele gi noonu nañu xoolaat bu baax a baax xoolaat suñuy tànk bës baax na ci ki nga xam ne àddunaa ko yitteel waaye baaxul ci ki nga xam ne islaam lay waxal kon nañu fexe ba ñun ñi nga xam ne ñoo seq di waxal islaam dont ne man sax bokkuma ci parce que amuñu aw euh, euh, tubaarkàlla euh, as ndongaleen ci boobu as ndongaleen ci waaye ñi nga xam ne yéen ñi nga xam ne yéenay waxal islaam yéen ñi nga xam ne yéene suñuy sëriñu daara yéen ñi nga xam yéene suñu magu daara ñun ñu nekk as ndongo ci biir nañu fexe ba ñun ñooñu bu ñu bu ñu am wuute boo xam ne dana tax nit di jóg dal kaw ndax bës déedéet nañu ragalante ginnaaw ragalante ginnaaw boo xam ne da koy teg ci dëgg ragalante ginnaaw boo xam ne mooy may islaam kanam gu rafet ba ku jógee fële mën a xemeem islaam mën ci bëgg a dugg waaye ki nga xam ne bëgg na dugg ci islaam ñoo fekk ñooñ islaam ñi nga xam ñi ngi waxal islam ñi ngi ñi ngi dagg sante ñi ngi doorante ay ay ay birig ñi ngi fëggante ay jaasi loolu ay exemple la rek mais kenn dóorantuwul jaasi mais dama ko waxee noonu parce que bu nekkee ñiy waxal islam ku ciy wax yaa ngi xalaat ne bu ma fi jógee sama sama xarit sama mbokk oustaz diw sàngam na dal sama kaw na wax nangam est ce que loolu moo taxoon jóg islam déedéet tey bu ma waxoon ba juum rek bu may génn léegi nga gis am ko xam ne dal sama kaw am ku wax ba jum mu génn gis ma dal kawam est-ce que loolu mooy islaam mbokk yi loolu nekkul islaam laysa sujaau man lam yaxta na sujaau man tuaddu xattahu jàmbaar de liñ ci jàngoon mooy ki nga xam ne day juum kooku mooy jàmbaar waaye jàmbaar ndax bu juumee loolu gàcce la ci moom du gàcce ci moom loolu ndam la ci moom loolu ndam la ci moom léegi ndam loolu nag ndam loolu ki nga xam ne moo bokk ak moom di wax bokk benn kalan lu ñuy xeexal muy islaam moom li ko war mooy fexe ba njuumti boobu mu jéem seet nu mu ko defee xam ne kii yàgg na xeexal islaam yàgg na wax islaam waaye déedéet ñun kenn ku nekk yàkkamti nga kenn juum rek ba nga dal kawam mbokk yi loolu dama ne lu mat a bàyyi xel la lu mat a taxaw seetlu la ñu jéem a fexe ba loolu mu jegee fii waaye gis nga maam borom Tuubaa nam fi nekkoon moom ak maam Maodo Malick Sy radiyallaahu anhu ardaahu moom ak ki nga xam mooy maam Buukante Njaasaan ah borom Canaba borom laay borom euh, euh, fële maam Limaamu Laay maam Abdoulaye Niass borom Dimisqa xoolal ñëpp kenn ku nekk bi nga fi nekkee li nga doon fexe rek mooy sa diggante ak sa moromu doomu soxna sa sa wëllëre wala boog sa nawle doomu soxna seen diggante mu nekk lu ratax mu nekk lu xam ne benn kuy bëgg a euh, islaam du fa am accès waaye bu ñu demee tey ba ñun ñi nga xam ne ñoo nekk seen ginnaaw mujjee puso bi mu nar a réer suñuy loxo. ngir lan ngir bëgg bës ba kenn ku nekk yàkkamte nga bu nit waxee nga jóg wax si pour ñu ne diw moo jóg attaqué diw sàngam allahu akbar lan nga ciy am après lan nga ciy jëli après lan moo ci nekk sa bénéfice après lu mat lu mat a bàyyi xel la lu mat a bàyyi xel la kon ma li may def li may ñaan nii dama koy ñaan rek pour ñun ñëpp ñu bàyyiwaat xel lu baax a baax a baax te xam ne li ñu am ëpp na bës te muy islaam li ñu am ëpp na weerante te muy islaam li ñu am ëpp na histoire te muy islaam waaw ñun ñëpp ñoo bokk benn yu yonent bu ñu gëm kenn ku nekk bi ngay waxal islaam li nga bëgg rek mooy nooy def ba islaam am doole kenn ku nekk bi ngay waxal diine ji li nga bëgg dama mooy noo nooy def ba islaam am doole bi ngay waxal diine ji mooy nooy def ba ñi lay déglu am lu ñuy yóbbu lu xam ne buñ demee jariñoo ko buñ demee jariñoo ko ba demee ci borom borom Seexul Xaliil ba muy commencé nee na sax moom moom bañ na ko ba daf la wax ne la ah bari na nit nag bu muy euh, bu néew na nit bu mu muccee moom aji bari wax jiy wax maanaam waxkat bi bu mu muccee ci yenn njuumte yi waaye daf ne même bu ma juumee sax fexeel ba nanga ma ko deferal ci teg yéen boo demee ci sew xalim ba muy commencé loolu la wax waaw te ku nekk xam nga ci xam bu rëy waaye xoolal teggin bi mu teg mu ne man même bu ma juumee sax ci li ma bind nii fexeel ba nanga ko defal ci teggin na nga ko defal ci euh, gën jaar fa ci anam waaye nga gis ne kon loolu am lu muy jàngale mooy ndekke moom mu ngi sóoraale ne bu juumee bu juumee nit ñi dañ ko defeer waaye nañ koy deferee ban anam la warul nekk anam boo xam ne ci bëgg a dugg ci islaam daf ci ragale islaam warul nekk anam boo xam ne ki nga xam ne islaam euh, euh, euh, nekkoon na ci xolam mu am lu mu doon seetlu loolu bu mu ko dàq mbokk yi loolu lu mat a bàyyi xel la waaye lu mat a taxaw sedd la te loolu nag léegi jamono bi mu ngi commencé bari mu ngi commencé bari lool waaw mi ngi commencé bari lool macha allah te loolu nekk lu jëmale islam kanam waaw képp ku ñu bëgg a jaxase mbokk yi nañu bañ nañu lànk dama ne ku ñu bëgg a jaxase ñiy waxal diini islaam ñëpp laa wax ñëpp ñëpp ku ñu bëgg a jaxas nañu bañ nañu lànk nañu bañ nañu lànk parce que ñoo bokk benn général bu ñuy xeexal. mu yonent bi sallallahu alayhi wa kon ku ñu bëgg a jaxas nañu bañ nañu làng man bu ma jóg dal ci kaw diw sàngam diw sàngam bu ma jóg dal sama kaw parce que boo ko defee rek day mujjee yéen ñi leen doon déglu dañu mujj ne ñii kat waxalatuñ yàlla ab kuréel leen fi nekkee te loolu day daaneel islam mais du ko yëkkati da koy daaneel mais du ko yëkkati te gis nga am na si nit ñoo xam ne ay mufsid lañ kon nañ fexe ñun buñ bokk ci mufsid bi dégg nga. am na ñu xam ne ay yàqkat lañ te ñooñu boo leen waxee lañuy wax mooy man kat damay defar mais yàqu ma ñooñu fexeel bul ca bokk yow mii di ma seetaan bokk maa lay ñaan loolu waaye di jéglu baax a baax nag gis nga ba léegi mu wax la ne am na si nit ñoo xam ne ni euh, gis nga sànq nee naa la yow mi nga xam ne kilifa nga sax bàyyil xel njaboot gi waaw mu ne am na si nit ñoo xam ne euh, min wa minhum man yabxasu an an an ahli alfaqri wal maskana wal qillata wal xaajate kay yusaaciduhum kay yata kay yusaaciduhum yaani waaw aw kay yatasaddaqa alayhim léegi ne am na ñu xam ne si nit ñi sax dañuy wër di xool ko xam ne nii dafa ñàkk amul ñu ngi war ko xam ne nii am miskin la ñu ngi ko xam ne nii dafa néewle ñu ngi wër ko xam ne nii dafa am aaju dafa am soxla nee na li tax ñu koy war mooy mën a génne si astuut sañ am jàppale ko mbokk yi ki nga xam ne lii lay wër kii moom fu mu gisee jullit boo xam ne am na lu mu juum wala lu mu wax te moom la wax am na neen num mu ko gisee yaakaar naa du nekk lu muy publier du nekk lu muy tasaare ci àdduna bi di yàq deram kon loolu lu ma a bàyyi xel la waaye noonu la amee beneen kanaa bu taxaw moo tax mu ne wa minhum man yabxasu an haulaai li yadlimahum wa yatasallat am na ñeneen ñu xam ne ñoo ngi wër gaay yi ma wax sànq gaay yu baax yi nga xam ne amuñ dara dañoo néewle mu ne ñu ngi leen di wër pour lan fexe ba tooñ leen lañ am ñen lañ jot am as tuut ñen nangu ko waaye fexe ba buntu xatal leen fexe ba noot leen te mbokk yi lii nekkut yëfu jullit lu mat a bàyyi xel la nag waaw lu mat a bàyyi xel la te am na ñuy wootewu jullit di ko def loolu lu mat a bàyyi xel la waaw waaye noonu la amee ñeneen ñoo xam ne nii euh, wa minhum man yabxasu anil anil ay anil ay aytaam am na ñu xam ne ñi ngi wër ñi seen papa yi génn àdduna ñi nga xam ne ni ay ay ay jirim lañ amuñu waaw ngir lan biñ leen wër ñu ngi leen wër pour jox leen dara pour jàppale leen pour jël leen en charge waaye am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi leen di wër wa minhum man yabxasu an haula li yazlimahum aydan aw li yàqulu amwaalahum zulman waaw ñu ngi leen di wër ngir tooñ leen ñoom it jirim yooyu waaye ngir lekk seen alal yooyu ki ci ak tooñ moo tax mu sax al ko waxoon na mu ne ñi nga xam ñu ngi def loolu ñoom la lekk day nekk rek safara seen biir kon mbokk yi ndeke yàqanteel bi nekk si suñu biir yëpp euh, euh, bakkan ak seytaane moo ñu ci bëgg a yóbbee ba yàqan ñu ñun ñi nga xam ni wax ci islaam kon nañu bàyyi xel ne kenn ku nekk bi muy wax rek ba muy wax la ko tax a jóg mooy ni muy def ba defaral islaam nu muy def ba defaral islaam parce que yàlla moom li mu wax noppi na kenn mënu koo falsifier di ko yàq ku ko bëgg falsifier yàq tamit yow yaa yàqu kon li des mooy ñu ñi nga xam ne ñoo si nekk di ko wax nañu fexe bennoo bu ñu bennooy rek am doole nañu fexe ba kenn ku nekk bu sa moroom waxee rek bul ci gis fu mu bokk bul ci gis fa nga bokk waaye gis ci yàlla mi wax gis ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi wax mbokki bu ñu defee lii yaakaar naa lépp dina gën a jëm kanam waaye léegi bu ñu xoolee mbokk yi coow li bari na coow li bari na saagawante bari na saagawante bu xam ne kii saaga kami saaga borom xam-xam la saagawante bu xam ne kii saaga ci boppam moom borom xam-xam la saagawante bu xam ne eh, eh, eh, ñaar ñii saagawante ñoo waroon a ragalante ginnaaw ana lan moo wara loolu ndax yàlla taxaati na déedéet ba demee sootul euh, euh, ca ca sootul euh, fatxi borom subhanahu taala ca ba ba ñi ñuy tagg ñun jullit ñi de waxoon ñu woon loolu dafa waxoon muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wallazina maahu ashiddaau ala alkuffar gis nga saaga wante bii dóorante dóorante biig yi yàlla mu ne fi ñu ko waroon defee mooy ci kaw ñi nga xam dañoo weddi yàlla lu luñ yëkk teg ci islaam nga génne ko teg ci suuf waaw luñ jël pour xeex ci islaam nga jël ko teg ci suuf ashiddaw alal kuffaar waaw ñi nga xam ñoo jóg tey ne dañuy jàppale lesbiennes yi nga jóg dal seen kaw ñi jóg jàppale góor jigéen nga jog dal seen kaw ashiddaw alal kuffaar ñi nga xam ñoo jóg ngir ngir yàq njàngom xale yi ba dugal ci luy yàq seen jikko ëllëg nga jóg dal seen kaw ashiddaw alal kuffaar waaye nag boo demee ba desee ko xam ne jullit la yéen jullit ñi rawat na yéen ñiy wax si biir jullit mu ne ruhamaau baynahum ndeysaan ruhamaau baynahum waaw foofu kenn ku nekk dangay ngay am ñeewant ak yërmande ci sa morom ñeewante yërmande boobu war na mën a tax ba doo wax ci moom lu ñaaw war na mën a tax ba saaga doo ko yëkkat jëmee ci moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na mu ne képp ku ñuy saaga bokkoo si ñun bokkoo si ñun wa yow nga ne jullit nga gis boroom xam-xam buy waxal islaam amaana la mu wax la mu wax neexu la wala bokk moom may wax am na fu mu bokk ba tax nga taxaw taxawoon di ko xaar pour mu juum wala pour leneen nga jóg dal kawam yàlla mu ne déedéet ruhamaa u baynahum yonent bi ne bul saaga mukk parce que kuy saaga bokko si ñun ku ñuy saaga ñu naa mu ne bokko si ñun waa kay ndax alquran wax na mu ne waqulu linnaasi xusnan wa aqimu saa soo a ñëw dégg nga fexe leen ba booy wax si nit ki waxal ci moom lu baax waxaat ci moom lu sell waxaat ci moom lu rafet mooy tax ëllëg mahabba bi nekk seen diggante mën a yokk soo noppee foofu nag yàlla mu ne sa baax na sa sell na du leen dem jaamu ji yàlla kon képp kuy jàngale ci islaam man daal di ma lay ñaan ci xorma ak ci respect teggin mooy fexeel ba bul bokk mukk si ñi nga xam ne ñooy dal ci jàngalekatu islaam comme yow déedéet alquran mu ne wala taqatulu anfusakum inna laa kaan bikum rahiman gis nga bul rey sa bopp mooy ki nga xam ne yéen a bokk benn armée bokk lu ngeen di xeex nga jóg dal ci kawam dafa am benn benn xissa benn ñetti nag yu xam ne dañu àndoon nekk ci àll bi gaynde gi xool leen ba mu yàgg mu xëcc ci nag bu nag bu weex bi mu dem ci ñaari nag yi muy nag bu weex euh, nag bu ñuul bi ak bu xonq bi ne leen gis ngeen nag bu weex bii fu ngeen nekk rek moo leen di feeñal bu guddi jotee fu ngeen nekk nag bu weex bi dañ koy séen moo leen feeñal da ngeen bàyyi ma rey ko ñu ne ko garaaw reyal mu rey ko mu des ñoom ñaar mu dem ci nag bu xonq bi ne ko nag bu ñuul bii bu guddi jotee wala bu bëj setee fu mu nekk dañ koy séen dangay bàyyi ma rey ko sinon daf lay weer foo nekk mu weer la mu ne ko reyal mu rey ko mu des benn nag bi mu ñëwee ba jàkkaarle ak moom ne ko fan lay commencé <laughs> waaw rey na ñaar yee ñëw ba jàkkaarle ak moom ne ko léegi fan laay commencé mu ne ko man kay bi nga ma reyee yàgg na bi nga reyee nag bu weex ba booba nga ma rey nga ñëw nag na rey nag bu ñuul bi léegi jeexal nga ma xanaa kay yaay xool fu la neex parce que amatul kenn ko jàppale léegi nag ñun léegi nag ñi nga xam ne ñun jullit ñi ñun jullit ñi ñun ñi wootoo ne ay jullit lañ bu ñu demee ba tey ji ñu nekk di dàgg sante ka saagawante mbokk yi day dem ba mel comme noonu am na ñu nekk ci el bi ñu nekk ci el bi ñooñu li leen arrangé mooy dagga santé ak saagawante boobu moo leen arrangé parce que moo leen di permettre ñu mën a dugg ci biir mën a lëj mbët mën a jaxase affaire yi ba kenn ku nekk dootoo xam fooy teg sa tànk te loolu bokk ci li arrangé islam loolu bokkul ci li arrangé islam waaw ruhamaa u baynum bañ leen wax sànq boobu mooy bi arrangé islam taraahum rukkaan sujjadan yabtaxuuna fadla min allahi wa ridwaana ndeysaan yàlla mu ne lii de zalika maslum fi tawraat wa maslum fi injil mu ne boo demee téere yahud yi juif yi muy tawraat nga dem téere nasaraan muy muy injil mu ne boo ci dem rek danga fekk bi may misaal jullit ñi loolu laa waxoon ci ñoom ñoom noonu la ñuy mel kon bu ñëwee ba yegsi comme lancé nañ ñi avant ñuy ñëw dana am ñu taxaw préparé ñoom pour loolu ñu bañ cee teg suñ tànk parce que buñ ci tegee suñu tànk kenn dootuñu mën a leen waaye ñi nga xam ne ñooy wax ni ñu di leen déglu nag ñooña ñooña ñoo gën a jara teg seen tànk ci loolu ci ruxamaa aw baynam boobu noonu waaw fexe ba di yërëman seen biir di suturaalante waaye fexe ba ñoom seen biir ñi bennoo te bàyyi dàgg waaye fii bennoo gi ak bàyyi dàgg sante gi amul mbokk yi dama ne liggéey li ñuy liggéey islaam taxawagut feeg bennoo gi ak ak ak ak ak yërëmante gi suturalante amul mbokk yi li ñuy liggéeyal islaam taxawagul nañ am junnee xaafis nag waaye bu am buñ amee chaque année junnee xaafis junnee kaang bu fóore junnee borom xam-xam ñëpp di wax te bennoo yi ak yërëmante gi amul mbokk yi dama ne li ñuy liggéey islaam amagul parce jamono bu nekk rek dana am luñ bëgg a taxawal mais du mën a nekk parce que koo dajeet bu ma jógee saaga saaga borom xam-xam du saagam kooku jóg saaga ma ëllëg ñu dajee ci ñeneen dañoo bëgg taxawal dara pour islam ñu dajee man ak moom mu kii bi ne affaire lay doon man mën naa wàcc sama xol mais am na ku ma soppoon saaga bi ma diw saagam saaga tax na moom li diw di wax du ca mën a d'accord moom mi ma saaga wala mu saaga ma man na mën na bàyyi li nekkoon ci xolam waaye bu ñu dajee ñun ñaar saaga bi mu ma saagoon am na ko ànd na tax la mu wax du ca d'accord waaye li mu wax tamit kii ànd ak moom du ca d'accord kon lim mën a yàq moo bari lim mën a yàq moo bari léegi nag waxukaay yi bari nañ waaye lu waxukaay yi bari bari bari teewul wax ju rafet moom mi ngi fi lu waxukaay yi bari bari teewul wax ju ñaaw jamono bu nekk day gën a ñaaw day yàq rek mbokk yi kon lii ay kàddu yu néew woon rek yu xam ne ñu ko àndoon suñu émission Actu Diiné ngeen ci ànd seen mbokk Oustaz Habib Socé lu su jub ci yàlla la du ci dëng suñu ñun la suñu gàtt xam-xam suñu néew euh, euh, suñu gàtt xam suñu euh, ñàkk fasaha waaye liñ ci bëggoon rek mooy defar luñ ci juum rek maa ngi koy jéggula képp ko xam yaa ngi déglu yaa ngi seetaan in uridu illa al islah mastaatu wa ma tawfiq illa billahi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bu samedi incha allahu ak beneen actu diini